Euh, des libertés des journalistes, on apprend euh, que notre confrère de Sen TV, euh, Serigne Saliou euh, Gueye, dañu ko convoqué woon depuis ce matin à 10 heures ñu signifié ko des actes d'accusation accusé ko d'usurpation de fonction maanaam Serigne Saliou Gueye du journaliste dafay usurper la fonction parce que juste dañ carte de presse am mu ne amul carte de presse et d'offense à magistrat maintenant sur le sur les accusations d'offense à magistrat euh, loolu mënuma ci wax mais tamit euh, est-ce que ce n'est pas une situation inquiétante comment peut-on imaginer dans ce pays Serigne Saliou Gueye euh, qui pratique ce métier depuis plus de quinze ans ñu taxaw di ko accuser d'usurpation de de, de fonction xanaa ña ko koy accuser dañoo xamul nan la ñuy qualifier journaliste ak lan mooy tax ñu considérer un individu comme étant un journaliste. ok situation bu bu incroyable parce que effectivement. vous faites bien de dire incroyable waaw parce que parce que dëgg la parce que Serigne Saliou Gueye ñëpp ko xam euh, dans le métier muy exercer ci benn chaîne. Euh, pignon sur rue. très connu avant chaîne il est au témoin. il était au témoin il a un parcours euh, moo tax. c'est un peu surprenant ñu ne du journaliste parce que amul carte de presse les deux sont surprenants qu'on dise que euh, du journaliste c'est une surprise mais qu'on dise que amul carte de presse aussi c'est une autre surprise loolu au-delà de la situation exceptionnelle day renseigner ci situation crise globale du point de vue des relations médias et de la citoyenneté bi ñu nekk kan mooy journaliste ak ku ko nekkul au-delà de Serigne Saliou Gueye qui est anecdotique bëri nañu exercer métier bi aujourd'hui yu amul carte mais amuñ une pratique aussi honorable du métier et qui ce qui pose problème d'ailleurs tey ci métier mi ni ko ñii di pratiquer ak ñeneen ñu koy pratiquer au-delà du cas spécifique de Serigne Saliou Gueye la surprise c'est que mu bañ a am carte de presse quoi loolu moom c'est c'est quand même c'est quand même surprenant il travaille dans des médias euh, légitimes accrédités reconnus mën na am une carte de presse en interne mais peut-être que ñoom carte de presse bi ñuy exiger mooy la carte de presse nationale. ah waaw xam nga li ma bëgg wax mooy Serigne Saliou Guèye journaliste la moom euh, kenn mënu ko naatable ci pratique bi ndax bët bu set on le voit pratiquer son métier c'est même un acteur euh, dans la presse boo xam ne am na une couleur de l'opposition remarquée d'ailleurs mais qui le fait euh, avec passion loolu ñu ngi koy gis. mais li ñuy surprendre mooy mu bañ a am une carte buy mandargaal ne c'est un professionnel de ce domaine mais moo tax ma ne au-delà de Sëñ Saliou Guèye après on viendra sur les libertés soo buggee mais li muy wone mooy am na aussi ñu yàgg am pratique journalistique defuñ métier bi correctement di créer euh, beaucoup de tollé di joxe de fausses informations euh, les sites internet bëri na c'est notre force mooy force démocratie sénégalaise parce que pluralisme boobu dañ cee gis mais en même temps c'est aussi un des dangers suñ ko contrôlé wul xool lan mooy responsabilité à côté de de la liberté de la presse bi nga xam ne mooy sunu mandargay démocratie pour les